بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءل أدنى بعد إيتام لقد لقد مي لقيت كيف آلي يا إلهي ليس لي كيف آلي بطاعته وليلا لختكوا لختموا كم يلم لقيتك كيف علي يا إلهي ليس لي أرجو أمال الكثير gàdduta loxo ca kaw ñoo ko bëgg amul loxo yi ca kaw fini afini ah, waaw عافنا من كل داء خوفني عافني واو عافني واهدي أني حاجتي إلا لي قلبا سقيما أنت ما يسهدون لحجك لحجمي لخيجك كل نار لخيجك كل نار لخاني معك كل نار أخيكم أخلد قل تاركوني أنت في حبي هلولة لحجكو لحجمي آه لحجكو أنت سافي yàlla anta saafi def leen nii anta saafi yàlla anta saafi yàlla anta saafi waaw anta saafi anta saafi ifil li ummati وهم أمته واصبر لها واجبرا ربي الله يا الله رحمن يا رحيم يا مالك قدوس يا مؤمن سلام يا الله ku fi gën a bëgg Serigne Babacar loxo ca kaw ma woo yàlla ku fi gën a bëgg Serigne Babacar loxo ca kaw ñi màggal ko ziyaarati rawniya rahmaani yàlla ziyaarati Mustafa rahmaani yàlla loxo ñi màggal yàlla loxo ñi màggal ko ni nu sànnee woon xeer wi daaw dégg kàrnu ji ren noonu fas yéenee nag sànniwaat xeer wi ren yàlla nañ ko dégg déwén ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di nuyu nag sunu sëriñ sunu xarit suñu lépp nu ñaanal ko njaay yàlla na yàlla guddal saw fan ci barke yonent yàlla muhammad njaay loo dund ci nun rek doyul yàlla na nga dund téeméeri at ak fanweer yu tàmbali tey jii ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne di leen amin waay waaye nu nuyu nag sunu kilifa di sunu yaay di sunu xarit di sunu sëriñ di Adja Fama Socé ñaan yàlla yàlla na yàlla dolli wéram yàlla na yàlla guddal fanam yàlla yàlla sàmmal nu ko aaral nu ko laqal nu ko fu yàq yeggul ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa waaye di nuyu nag délégation bi nga xam ni noo jógee ba Sukabek at mu jot sëriñ bi jàppal leen bi su waaye nag dëgg-dëgg nag ci ndigalu nag xaritam bi soppeem bi taalibeem nga xam ni bis daf ma wax ne ma bàyyi biram ma ne ko làbbayka mu ni ma shérif de dafa ñëwoon sama kër bind ijaasa teg sama loxo waaye ma wax la ñaari baat ijaasa bi li muy rëy rëy rëy rëy rëy bi Cheikh teg sama loxo boobu daal dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg daal rëy na lool ci man ma ne ko wax nga dëgg ndax mbër nag kala jàggi ruur ki teg lub àll wasalub ne la neel baa ba xëy ne la bàyyil yëkkati nag dara teg te loxo teg la ca barab nag ne la dafa doxal waaye kooku mënoo ko yemaleeg dara loolu sëriñ bi yàlla na yàgg te sax ci barke yonent yàlla Muhammad muy wóolóore gu yàgg nag bàyyi si saxoon nu ngi lay nuyu yàgg mag ñi nga àndal ñépp jóge ca xadara ba nu ngi ñaan yàlla seen taxawaay yàlla na yàlla saxal ko te yàggal ko barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nu nuyu it sunu yaay booy yi jiital nuyoo bi rek teg ko ci sunu yaay booy meer ba ñaan yàlla it taxawaay bi yàlla na yàgg boo àggee ñëpp tabaarakallaa nga joxal ma leen seen nuyoo. waxtu wee xat ba tax na mun mën nañoo lim nag waaye waxtu wee xat su ko defee nu ngi nuyu suñu kilifa it tabaarakallaahu euh, di tabaarakallaahu sunu suñu mag dimbaleeti leen ma fàttewuma la de xujja noxo ñu ngi koy nuyu nga xam ni moom mooy sunu xalifa ñaan yàlla taxawaay bi yàlla na yàgg nuyu soxna yi ci kër gi yépp sëriñ bi sa xarit ñëw na sa xarit ñëw na na mu doon ñëwee ànd ak délégation bu rëy loolu nag bala ñu cee dugg tabaarakallaahu dañu yëkkati kàddu gi jox ko mag ñi tabaarakallaahu nu yëkkate ay kàddu ziyaara bu nu yëkkatee kàddu ziyaara ma nuyu waa kër Seydina Muhammad baay jibi bayaada nu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla yàlla na yàlla barkeel leen yàlla yàlla bàyyi leen ak seen baat yéen ak ñi ngeen àndal ñépp nag waaye neex na tegu na ci yoon yal na yàlla fay leen yiw nii rek la dama daan wax xale yi ne leen tagg yonent bi kenn moomu ko waaye ku nangoo gëstu ci téere yi rek man nag mën a tumaa jàng ndax depanse jiital na ma mën nuyu suñu doyen tabaarakallaahu alxaaji Aye Guèye nga xam ni moom kër gii mooy këram moom midi fi la ko waroon a fekk ndax ñëpp moo leen waroon a dalal waaye xat-xat yi biddanti day biddanti rek wala ma xalaat del teel a tëdd su ko defee rek ñu jox kàddu gi suñu way jur bàyyi mbóoj su ko defee mu rotal ay kàddoom su daanelee ñu jox Muhammad Sisako al muqaddam mu jottali ay kàddoom tabaarakallaahu ah aya ubbil sëriñ bi tabaarakallaahu sëriñ bi dugg nag dalal ay ganam ñaan yàlla nag ñaanal nu yàlla nu fekk ko déwén ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi bismillah mbégte la ñuy amaat ci teewaat fii ci kanamu ki ñu amul ku dul moom muy sama sang sama la sama sëriñ Cheikh Ibrahim Ndiaye mbégte rek la amati ci toog ci wetam di jël kàddu mbégte la amati bàyyi ko ba Sokabek ñëw yeesal sunu ziyaara jëmee ko ci moom wolof moo ko wax day wax nii ki tax nga mel noo warul woon a mel du sa moroom sa sang eh, gannaaw bi ma nuyoo samay wayjur Papa Alassane ak sama yaa màgget ñi nga xam ni ñooma nàmpatal ci lii ba ma taseeg moom ñoom remerciement bi ci ñoom lay tàmbalee ci ñoom it lay yem li tax ma jël bay mbooj mu wax dama xam ne boo waxee waxaaleel na ak sama papa Alassane waxaale na yaa màgget ndax li may wax xam na ko waaye damay jaajëfal bu baax ñi ma àndal ñu bàyyi ko ba Sokabek jiital ci sunu yaa Awa sàll nga xam ne maak moom ñooy nekk dimanche bu jot mook Baye Saliou Gueye buñ ko nuyoo nuyoo sama yaa Roqaya euh, yaa Mameek yaa Aysataak bàyyi ko ba Sokabek tamit ñoom it nga xam ni ñu nag ñoom ñooy nekk altine bu jot ci lii ma wax leen ku ñu ànd ak man gunge ma ci lii kon mbégte lañ ci am gannaaw ci loolu ñu nuyu mbooleem ku bàyyi ko ba Sokabek nuyu waa daare maam Abdoul Aziz Sy Dabakh ak ñëpp rek soxna yeeg ñëpp ziyaare leen ñaan yàlla yàlla ñu ko yàgg teewe li ma wax yaa ko jot na rek lay waxaat ne naa ko dina ma neex lool ñu dem bay tànt ay tànt oto yi yi tegaloo bis yi tegaloo ñu naan ci soxo mooy ziyaar ji sëriñam loolu de lay ñaan te ci tànk yooyu lay nekk incha allahu taala di nuyu ñoom Seydina Jibril ñoom Seydi Aada Alfahim Alxaaji Mansour Seydina Cheikh ñu ziyaare leen nga xam ne ñoomi tamit lu ne ñoo koy defandoo ñooy àndante ci lu ne ci tagg yonent bi ak ci leneen kon ñu ngi leen di jaa jaajëfal fu mu jotee ma wax leen rek ñoom ñu dagg seen yitte ñëw gunge ma ci lii kon it ñu jaajëfal leen bu baax a baax a baax a baax man nag dama tàmm su ma toogee Cheikh Ibrahim même bu dee ñaari baat sax ma def ko taalif ah, bu dee ñaari baat sax ma jéem bindantu ko te jamono bu ne fi may dikkee rek mooy fu ma toogee ci wetam su ma demee nag ba yegg ca kër gi doo kaa mën a àggali ko defee maa ngi nuyu Aya Gueye noonu may seen noonu ci ginnaaw euh, dama ni delsi naa di yeesal sama ziyaar ak sama jokk ci ki ma amul kudul moom xam leen ko mooy xalil cheikhi wa sayidi xabibi wa murabbi yàllaa ko def mooy sama sang fii ak fanu jëm xam leen ko mooy xalil maam soo di maamam moo doon leer gaak ngëneel ya moo mel nu yàlla bëgg xam leen ko mooy xalil moo tàggatu xam ba muy tàggate ku ko jege fobu dëgmal saa boroom xam leen ko mooy xaliil cheyixun taqiyun la yiinun naqiyun moo gaaw ci ku fettéerlu falay miinal sa boroom mooy xalil cheikh ibrahima xus bi yadi def nga sama xol ba mënul yëg lu dul yàlla ak topp sunna na bi koo koy xalil amuma gisuma yëguma ku may jaayanteeg sa boroom ku la mooy seydi ibrahim yaay sama wasila cheikh ibrahima xalil yal na buur laaxu mottili sa yéeni ci njaboot gi bàyyi la ak ñun nga ñuy gindi dina gunge fi diine wa dunya sayidi xalil yal na buur yokk sa wér def la ngay maam ci darajay sayidina muhammad cheikh ibrahima xaliil xamuma lu may yëg ci sa ci ma xol su ma nekkee ci sa wet mbégte lay mbégte lay doon njaay jërëjëfate xalil zur naaka zur naaka yaa cheikhi yaa sanadi yaa def ca man lu tax ñu ràññee ma ci diine sayidi xalil asalaamaaleykum wa rahmatullahi yu baax yi ñu ngi leen nuyu di leen ziyaara waaye di leen dalal soxna Faama Soose it mi ngi leen di fay nuyoo mu ngi wane it kontaanteem bu baax a baax ci seen yëgsi su ko defee ni ñu leen di dalalee noonu lañ leen di nuyooye mboolem képp koo xam ne yaa ngi ànd ak Oustaz Sissoko jóge ba Sokabek ak ñim fi dajeel ak ñim fi fekk ak dëkk ndoor yi ñu ngi nuyu ñépp jiital ci nuyoo bi nag suñu waajur yi mu àndal muy baayam di suñu baay al alsan si soxo ñu koy nuyu di ko jox wàccuwaayam moom itam suñu diggante yàgg na lool waaye mu nekk ku baax ku nangoo uuf njaboot yi mu jur ak yin ko jural di magam tarixa bi nag jaral na ko lu ne su mi léegi grand boobu bi xeex ndax tariixa bi defu ko muy dara su paree wekkiwaat grand boobam dem yoonam loolu nag du ñëpp ñoo ko am du ñëpp ñoo ko man du ñëpp la ko yàlla jagleel <coughs> su ko defee nu teg ci it suñu baay Cheikh Mansour Mbodj ñu koy nuyu moom it di ko dalal di suñu xarit xaw naa géej nañoo gisee waaye bu ñu waxtaanee rek dinañ dëppoo ndax suñu xarit la te dañuy waxtaane yu bari muy ko am expérience ci mbir yu yaato yaato yaatu moom it ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu suñu baay Saaliwu Géey daaw waxoon na fi kàddu yu am solo waaye xam nga magum tariixa bi boo ko gisee rek danga koy xam wala sax damay wax ne magu leer boo ko gisee rek danga koy xam ñu ngi koy nuyu moom it waaw loolu lu wér la te dafay feeñ ci jëmm ji nuyu kilifa yi mu ànd ak yépp ni ko al waxee ñi ci gën a mag ba ñi ci gën a nekk ndaw suñu nuyoo defe naa suñu yaay soxna Maguette Ba jox ko wàccuwaayam nuyu délégation bi si soxo ànd ak yépp ñi ci ay yaay ñi ci ay mag ak ñi ci ay rakk ñoom ñépp ñu ngi leen di nuyu bu doon suñu sago ku ci nekk danañu jaar ci sa tur nuyu la waaye def nañ ko ci suñu éyne nuyu tamit soxna yi soxna yi nga ànd ak fa tabaaraka la ñu dar la di la jàppale bi gis naa ne sax léegi da ngaa xaw a jël poids <laughs> kon ñu ngi leen di nuyu ñëwet bu baax fa tabaaraka la ndax waxkat yi dañoo wax ne ginnaaw góor gu baax gu ne jigéen ju baax moo nekk ca wetam <laughs> kon nag fa tabaarakalla bu ko defee nuyu taggkati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ciy jiital rekk sëriñ Biram Seck nga xam ne maag moom ni mu ko waxee noonu laa amee yàgg nañ lool suñu ànd bi ni mu ko waxee xumboon na lool waaye nag wéetoon na lool ndax dafa am loo xam ne dafay am ci ànd mooy ay nit bu ñuy ànd faw dana ci am ñoo xam ne yàlla dana leen boole ca biir ba la ñuy séq duñ ko séq ak ña ci des loolu la yàlla defoon sama diggante ak moom maag moom séq nañu lu ne waxtaanee nañ lu ne bërki démb rek maa ngi dégganteeg benn waaye bu yàggoon ak ñun lool mu ma lay laaj mu Ibrahima Seck ndaanaan mu xaw a fàtte nag tur wi te man xam naa ki muy laaj may wiire nag ku ma tuddal rek mu ne ma du kooku de waxuma suñu waa jooju de <laughs> ba ñëpp a jeex ma taxaw ma ne ko jeex na mu ne ma déedéet des na de <laughs> waaye mu a tuddee rek mu ne waaw kay ku laa doon laaj <laughs> kon loolu mooy wane rek ne diggante bi yàgg na mais alhamdulilah dëgër na yaakaar naa dem nañu ba toog ci man di wax ci moom nit ñemewu ko moom it kazalik am na fi benn jamono ma defoon benn émission buñ doon wax an nuur ak benn ussaas bu bari xam-xam may nettali benn xisa bay wax benn waay bu daan sulli ay bàmmeel di séeg néew yi ak di sàcc ba ñu oor yi comme gis nga émission gars yi dañ koy jaay te dañuy xool fi ñu gën soxla ñu jaayee ko foofu bi may expliquer di wax waa ji li doon wax yonent bi ba mu wax ne man dama daan sulli ay néew di sëy ak ñoom foofu la gars yi dagg def ko ci publicité bi nga xam ne boo koy booy déglu publicité bi da ngay jàpp ne man mii man maa daan sulli néew yi di sëy ak ñoom bi loolu publicité bi ñuy dawal loolu parce que ñoom dañuy jaay rek seen publicité pour nit ñi kar émission bi parce que lam leen jural bëri na ndax ku déglu loolu rek dinañ waaw oustaz kon moo daan def loolu lii fa ma déglu ma seetaan ko am na ñu bëri ñoo xam ne dañ ma woo sax ne ma ñoom émission bi fekku leen fi woon daf leen raw jour bi muy daw heure bi mais bi ñëwee dañ ko kal ci internet bi lañ ko koj pour seetaan ko dëkk bi nag di toj ci baat boobu mais. am ku ko woo wax ko ko ba benn kilifaam sax laaj na ko ci mu ne ko ah nañ ko déglu ba xam lu muy wax waaye xam naa ne Ibrahima ma ma xamoon du façon boobu loolu tontu kilifaam boobu waaye ñi nga xam ne duñ ay kilifaam bañ ko ci duggee defe naa dégg nañ ci sax lu leen metti bi émission bi dalee nag mu doole leer kon loolu wane rek ne suñu diggante yàgg na fa la nuyu sëñ Aye Guèye ñu ngi lay dalal bu baax moom moog si soxo ci man fa la li musaa wax léegi rek papam kilifa la te bi mu koy def boobu mënatul waaye yanu na papam andi ba fii ah alhamdulillah suñu ànd ñu nag moom it ay waajuram dañ cee nangu kon ñu ngi lay nuyu bu baax ni ko biram waxee yow yaa waroon a ànd ak xale yi ñoom Saaliw ñoom soo dalal gaay yi waaye nag ngant du ñàkk nuyu mbadaa ina rasul yi Abdou Aziz Mbaye yi ànd ak ustaas yi soxo nga xam ne ku yëkkati rek nga yaakaar ne mbaay la daaw defe naa biñ koy commencé ñi ñoo fi nekkoon di barkelu ba yàgg rek benn waaye dugg si sol benn costume boo ko gisee sax da ngay teg ni kii xanaa tabaarkàl la waaye bi mu yuuxoo rek waajaa ngi nii toog waaw mu ngi nii toog fa tabaarkàl la kon te i leen yàlla defalit yombul mooy famille bu dëppoo ay mag ak ay rakk yu ànd di wëy déggoo nii yàlla na yàlla gën a dëppale xol yi yal na yàlla gën leen jàppale yéen ñëpp seen groupe fa tabaarakalla su ko defee nu nuyu rekk magi koñ bi nga xam ne ñu ngi fi teew ku jiitu di xujja noxo di yaayu kër gi ñu ko ay waxee léegi mooy yaayu kër gi ñu koy nuyu di nuyu maire gay moom it di ku baax koo xam ne yu mel nii rek ñoo koy yëngal nuyu soxna may ñang moom it mi ngi fi teew di moom it koo xam ne suñu soppe la lool yàlla day bokkale ay nit boole leen loolu moo am sama digganteeg moom léeg-léeg ñu tegal ma ay audioom ci ay groupe damay sax yéemu nuyu suñu yaay suñu umpaañ soxna Ndey Fay mi ci biir ñu koy jox wàccuwaayam li ma leen di faral di wax fu ma dajeeg ñoom dinaa leen jox wàccuwaayu Baay Omar njaay wala nijaay Omar njaay ndax ñoo àndoon ak moom te rafetal nag rafetal ànd bi ba yàlla def li ko soob su ko defee nu nuyu nag waa daayira muxlisiina wal muxlisaat nga xam ne ni ko oustaz Moussa waxe léegi yàlla dogal na kenn rek bu ca teewee ñëpp teew nañu di président général mi ngi nii toog yàlla oustaz Moussa moo jëloon kàddu léegi président oustaz yi mu ngi nii toog mooy Serigne Thiam al oustaz yi nga xam ne mooy coordonné lépp lu am ci daayira bi lépp lu ñu war a jokkalante ci daayira bi mu di ko jokkalante mooy oustaz ngeen dugal ci aajo yëpp képp ku am aajo bu dul tasum réew mbaa mbokkum jàmbur mbaa suyub jàmbur dugal ca ngeen dugalaale ci ginaar yeeg pombiteer ibaadi yarsaxu man yashaa wal xawil aziz allahu latifu ibaadi yarsaxu man yashaa wal xawil aziz allahu latifu yarsaxu bi ibaadi wal xawil aziz allahu allahu latifu yarsaxu bi ibaadihi wa wal xawil aziz rabbana ma xalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaba annar rabbana innaka man tudxil naar faqad axsaytahu ma li salimina min al ansar rabbana innana samina munaadiyan yunaadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faxfir lana sunubana wa kaffir ana sayatina wa tawafana ma al abrar rabbana atina ma watana ala rasulik wala tuxsina yowma alqiyamati innaka la tuxlifu almihad allahuma axdi hawaijana wa hawaij min muminin walmuminat allahuma axdi xawaaijana wa xawaaij jamil muminin wal muminat allahuma axdi xawaaijana wa xawaaij jamil muminin wal muminat allahuma asfa mardana allahuma asfa mardana allahuma asfa mardana warham mawtana birahmatika ya arhamar rahim innaka la kulli shay'in qadir allahuma ijalna min kulli hammin fakhrajan wa min kulli dayiqin makhrajan allahuma ijalna min kulli hammin fakhrajan wa min kulli dayiqin makhrajan allahuma ijalna min kulli hammin faxrajan wa min kulli dayqin maxrajan wa ansurna ala man ahdana rabbana alayka tawakkalna wa ilayka namna wa ilayka almasir rabbana la tajalna fitnatan rabbana la tajalna fitnatan rabbana la tajalna fitnatan lillazina kafaru waxfir lana rabbana innaka antal azizul hakim rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi l axir hasanatan wa qina azaba annar wa qina azaba aljuuci wa qina azaba alfaqri وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الملك ودولتها وقنا عذاب فتنة الموت وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المخرج وقنا عذاب عند لقاء الله وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق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 تهدي من تساء من عبادك فيما شئت من عبادك واهدني بين خلقك حتى يصل مع سجائك آمين أسأل أن الفضل بيدك أسأل أن الفضل بيدك تهديه من شئت من عبادك نافي من شئت من عبادك واحتمل رزقا رزقا رزقا رزقا بسعولة بين خلقك حتى يسعد الناس وفضل قصد برحمتك تنجي من سؤالك واجعله مستمرا مستمرا مستمرا على ذكرك دعوة فوزا عظيما وسلم وسلم على سيدنا محمد عدد علوم الله والنعم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين na ñëpp raay na yàlla fay ñëpp yiw ñi yeesal ñu yeesal ذاك ما خاب من ضاك إن لم يكن مستعجلا يا نزهة مستكلين كم في قلبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل مدينه عدوك يا رب الورى رب الورى يا ربي أن تكشف عنا الضرر مبينا بالصائب من عينيته صار يا ويل من بالعصر الأناني جهنم جل راسل وصفات لنا وجدت لنا لا حالنا عندنا أنا في الأراضي وصب يدنا لتيجي سلام قيل لنا دلنا في الأراضي وصفات الوجدات لنا سيدنا لنا إننا أما تلاراني كويا كريم نبي سما قيدك وصفات الموجبات البلاد وصفات الوجدات لنا سيدنا لنا يا ربنا يا ملك الكونين لا إله يسر في دارنا ويا ملك يا ملك الكون أي كونين إله يسر في دارنا أتدف لي أمنا بنا سجد أحمد خير سيد رجال لمالنا أمير أمير يجب دعاءنا على خير سيد آمين آمين سجدنا ولا تخيس إليه jaana siril xaaji Maalik neena arjul amaana yawma la amaana illa iman amanna mawlaana ya rabbi ya rabbi wafir li sunubi انصر لنا كل ريوان من ينتبه واغفر وتاب من يتوب يا ذا العلا والقدم سعر عجب سمارك نانا يا ربي يلا يلا يقول رب تتاسن تباركين أكون أمين عما صنفا واقف بجاه المصاب وعالي عن الاغتباء غير المصايب أنجني رب الصدور رزقي لرى القلوب فقيه سوننا واسلقي رب النور والقلب ahlu saba qad rakaboo moom dong moom min malakil wa bajjaloo wal anbiyaa rasuli akrin diaz alxida fawna lidihim ilanim fi xifdi rabbina latif akrim bimijyaay almunif أحمر الصلاة بسيام محمد دل أحمد دل جهنا محمد يا دلتي الجنة محمد الجنة وهمتنا همتنا عمدتنا باي عبدنا عمدتنا هنا وعمدتنا هنا وعمدتنا هنا يونا لجزائز هنا يونا لجزائز هنا يونا لجزائز هنا يونا لجزائز هنا يونا لجزائز

أنا يا لجفا وخشك يا لجفا أنا يا لجفا أنا يا لجفا أنا يا لجفا أنا يا لجفا أنا يا لجفا أنا يا لجفا أنا يا لجفا أنا يا لجفا nínú yóò lọ́lọ́ jọ́sẹ̀ nínú yóò lọ́lọ́ jọ́sẹ̀ nínú yóò lọ́lọ́ jọ́sẹ̀ nínú yóò lọ́lọ́ jọ́sẹ̀ nínú yóò lọ́lọ́ jọ́sẹ̀ nínú yóò lọ́lọ́ jọ́sẹ̀ nínú yóò lọ́lọ́ jọ́sẹ̀ nínú yóò lọ́lọ́ jọ́sẹ̀ Hello, your knowledge has Hello, your knowledge has Hello, your knowledge has Hello, your knowledge بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءل